ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم suñu darsu bi weesu dafa na ñu ko tàmbalee woon waxtaane ku rëy ñun ku ku ñàkk su fekkee mën nañ ko waxe noonu mooy suñu na yaay bu baax alxaaji waali moo di njaay noppeeguñu ci jooy sama borom taala wàccee beneen natt muy génn àdduna suñu jigéen bu baax boo xam ne mel na ni ku bokk ak nun ndey ak baay muy soxna Xawa Jaañ dëkkoon fii ci Elizabeth New Jersey man de xawma ku ko gën a tabe tabe nag dafay nekk ci façon yu bari nit dana tabe ci alal nit dana tabe ci daraja nit dana tabe ci service wante moom tabam doo ci ban côté la gën a fësee waaw foo ko fekk mi ngi servir jaamu yàlla yi man bi ma ko xamee ba léegi ci loolu la nekk jàkka ji biñ koy sos bokk na ci ñi ci gën a taxaw te dëkkul saatanaay leen mook benn jigéenam bu ñoo tuddee aji Diop démb ma nga woon ca dëj ba jógee Florida waaye booba ñoom ñaar ñoo dëkk New Jersey fu ne la ñoo dugg eh, di ñaax nit ñi ci jàkk ji ñoo taxawal fii ci Staten Island événement yi nga xam ne lañuy def fii moo xam gàmmu la wala ya des gan yu bari lay host këram boole koog teraanga yu xam ne ci wàllu togg togg rek la bëggoon ak joxe joxe ñam togg ak joxe ñam ñun daan nañu defaral xaru lëmm wala lu ko ëpp daggate ko nag ba bu ci nekk mu def ko ci ci ne xam naa ne eh, soxna si mi ngi Dakar dañ koy def dugal ko ci frigidaire bi bu ko defee ngay génne benn par benn bu fi si nekkul mu jox ko abu frère mu indi ko abu it xaw ma ko ko gën a baax wallaay ah musuma gis ku baax ko ma awa wallaay nangoo sonn ci nit ñi maa ngi nettali rek ci dëj bi ne eh, ñetti at yi yëpp Eh, dafa am feebar dem na sax ba mën nga wax ci li ñuy tuddee eh, médecine léegi ne dañ ko condamné wante yëgalu ko sax yaramam yëgalu ko yaramam eh, ñi nga xam ne ñooy defar sama rawdu papa bi radiallahu taala anhu moomu boole woon ak ñoom contract bi ak ñi doon tabax wante li muy feebar feebar lu ñu def rek mu ne leen yónne leen ma vidéo yi yónne leen ma vidéo yi muy xoolee ne lii baax na lii baaxul lii baax na lii baaxul waaw parce que euh, kenn mënu ko satisfaire ndax dafa am zawq boo amee zawq qualité rek moo lay satisfaire te ñi ñiy liggéey ci wàllu googu moo leen gën a xam taar balaa nga ko doon xam nga dem këram New Jersey waxuma la salle d'accueil bi mais toilette yi boo ci duggee toilette yi boo ci duggee da ngay bëgg a summi te la ci ëpp moo ko defaral boppam sawaroon waaw bëgg diine def ko ci njabootam bëgg diine def ko ci njabootam bëgg diine def ko ci njabootam waaw euh, maa ngi waxtaan ak barke demu imam Mouhamed Ndiaye bu Indiana moom choc bi mu am ba léegi revenir te bu ñëwaan fii ci man ci kër awa lay wàcc imam Mouhamed Ndiaye bu Indiana te noonu la ko doon defee ci anam yëpp waaw maa ngi koy wax démb ma ne gis ngeen yàlla de lu ko neex def ku yebu ci ñun rek waaj ndax awa ni mu bëggee woon lu baax ak ni mu bëggee woon lu rafet ni mu bëggee woon lu set ñu ñëw fii ci armeel yi ñun ñépp ñu waxi ba mu xóot ñu fas yéene bàyyi ko fi dem loolu kumu waaru dootoo waaru moo tax kafa bil mawti waayidan wax gënu ko nekk dëgg waaw ah, dee doy na waare di dem ci ilimaan ji pour mu waar la jaru ko xalaatal dee rek waaw xalaatal dee rek xalaatal dee wa alihi wa sahbihi wax bu siiw dafa li mithli haadha fa aiddu limithli hada fa aiddu maanaa kuy préparé nanga préparé de ah Seydina Bara nee na dañu toog ci cimetière yi ci boppu benn xabr nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa jooy ba dafa jooy ba suuf si nekk ci suufam ci boppu xabru bi mu toog fekk néew leen fa yóbbu suuf néew leen fa yóbbu nee suuf si tooy xeb daa jooy yonantu sallallahu alayhi wasallam waaw yonantu moom daf daa jooy bokkul ak ñun wa classe gi moom seen rongañ mi ngi noonu daanaka mi ngi noonu yonantu bi mu jooyee daal di siggi xool saxaaba yi ne yaa ixwaani li mithli hada fa aiddu yéen sama mbokk yi bés bu mel nii na ngeen ko waajal bés bu mel nii na ngeen ko waajal eh, na Xawa nag ku waajaloon lii la ndax moom lu jiitu muy feebar muy feebar yëpp mi ngi naan soo fi jógee bu ngeen ma yóbbu senegal na ngeen ma denc fii ci armée lu julliti soo defee ma ne ko sam baba daf daan wax ni feebar xamut fu ruux nekk ci yaram xamu ko ma loolu ba nga ma ko waxee ba léegi fàtte uma ko waaye du tere fu mu toll mi ngay dénkaane pour wax la ne la eh, jàmbaar la ñaari semaine eh, naa ay le deux wala le premier bi ñoo bëggee jógee mag daf ma woo daf ma woo fekk benn waay bu soxnaam am ak moom jafe-jafe la may woowee te waaye dañu seqoon ci wàllu liggéey xaalis te mënagul woon joxe xaalis mu rus ma woo awa nekk ci lalu hôpitalam ak xeetu feebar bi mu feebar maara deytaali ak mettit yi muy dem mu wooma ne ma diw dee def la ruso woo ndax nangam ak nangam xoolal xoolal xoolal euh, générosité boobu générosité maanaam nekk fi nga gën a soxlaa dimbal di dimbali jaamu yàlla yi waaw di dimbale jaamu yàlla yi daaw ànd naag ñun dem xaj dem astaghfirullah umra waaye ñi nga xam ne ñoo àndoon e, ñu ci yon ne ma message kii naan man de maa ngi yére boo xam ne moom moo ko jëndal ki naan maa ma defal cadeau bi te bo kat moom mooy moo gën a feebar ci group bi bi ñoo dem sax e, avion beeg yëpp dañ koy wutal e, chaise roulante waaye ba ñu yeggee Madina dafa mel ni dara jotatu ko dafa mel ni dara jotatu mel ni dara jotatu nag mbokk yi li yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax rek ne musuma gis musuma gis manzar bu raglu comme bu te ñun ñëpp lañ jëm wàqi ba mu xóot ñu suul nee na mooy station bi njëkk ci station àlaxira yi ne ku ca mucc la ca toppay gën a yomb waaye bu ci jaam muccut nee na la ca topp wal iyaadu billahi mooy gën a jafeyal yàlla nañ ci yàlla boole musal waaw rawda la min riyaadil janna moom xabru jardin la ci jardin yu aljanna yi mbaa leneen ñu ngi ko koy yaakaaral nag ndax ku bàyyi woon xel sama borom la tabaraka wa taala ñu ngi koy yaakaaral yàlla leeral bàmmeelam yàlla na ko yàlla def ñu ngi koy yaakaaral yàlla musal ko ci fitnaay xabr xam nga xabr eh, dafay tamp dafay tamp dafay eh, taj tànc kiñ fa suul waaye am na ñoo xam ne duñ ko yëg waaye ku dugg ci xabru xabru tànc la ndax yonentu nee na eh, tànc bi ci xabru bu fekkoon ne am na ku ciy mucc Saad ibnu Muaad lay doon Saad ibnu nga Saad ibnu Muaad mooy benn nit bu ñu xam ci histoire bu tax bu deem tax arash yëngu arash yëngu ihtaza arshu rahman waaw yonentu nee arashu yàlla bi yëngatu na ngir deewu Saad te terewul eh, bàmmeel tànc ko waaye bu la yàlla yërëme doo ko yëg moo tax yàlla bum ko yëg waaw ah. yàlla bum ko yëg yàlla bum ah. ndax ku eh, mel ni saadi yonentu ni muccul ci tànc kenn du ci mucc waaye nag mën nga ko bañ a yëg ndax ah, saad arasha yëngu ngir faatoom ñu ubbil ko bunti asamaan waaw waaw juróom ñaar fukki junney malak fekkee eh, Saad ibnu Muaaz ñu koy waajal te terewul bàmmeel tànc ko waaw terewul ko bi ci desit mooy eh, bu doon nit ki dafa dee mu jeex waaye yonentu sallallahu alayhi wa mi ñoom misaalal Eh, ñaari malaaka yi ñëw di laaj jaam bi ak nañu ñànge ak nañu ñànge waaye ku yàlla may sabat nga nga xam li ngay tontu yuthabitu llahu alladina amanu bil qawli thabit te ñu ngi ko koy yaakaaral yàlla na ko ko yàlla may ko koy yaakaaral mooy bu ñu ñëwee ci sa xabru di la laaj koo doon jaamu nga mën a wax yàlla laa doon jaamu lu doon sa diine nga mën a wax lislaam ku doon sa yonantu nga mën a wax yonantu sallallahu alayhi wasallam ban téere nga amoon nga mën a wax alquran waaw ah. waaw xam nga ku fi ku faatu rek yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis yoo xam ne mi ngi ci Buxaari ne moom yonantu dana nekk ci sa bopp bàmmeel malaaka yi ne la loo xam ci waa ji loo xam ci waa ji loo xam ci waa ji bu dee jullit la woon nga ne ah kii mooy yonentu sallallahu alayhi wa sallam nga xel mu dal fa la fa lay fa lay tàmbalee yàlla wane la ak yonentu bi nga nangul ko waaw yal yàlla may ko soxna Awa Jaañ bi ak képp kum fa fekk ak am nañu gëmul lool nag ne téeméeri milliards yi nit dee nañu waaw ah, bés bu nekk ay junney nit danañu dee nan la yonentu sallallahu alayhi wasallam di mën a teewee ci xabru yëpp ñu tontu leen ñu tontu leen ne ka shams fi kabidi samaa'i wa daw'uha yaxsha al bilaada mashariqan wa maghariba ah, jant ngi ci kaw asamaan benn la te foo taxaw ci àdduna dangay foog ne yow rek la timmaaw taxawee senegal foog ni jant yow rek la tiim boo taxawee du Sud noonu boo taxawee Amérique Australie dégg nga réew yu Asie benn jant la su ko jant mëneej te jant lëf la ci leeru yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam su jant mënee naka la ko yonent di bañ mëne naka la ko yonent di bañ mëne am na ku doon tooy sànq ne bi nga yegg si ñu ngey jëw ñu ngey jëw xam naa sax lam doon wax du jëw waaye e, mu fàttali ma soxna Awa musuma fàttaliku nga wax ci moom ngay wax moom mu tuddal la nit wax ci moom lu ñaaw waaw Ibnul Mubarak dañ ko ne ko e, dafa ne Sufyaan Athawri ñoom ñaar yëpp ay sang lañu Euh, ak euh, mu ne musuma gis ku gën a sori jëw Abu Hanifa mu ne musuma ko dégg sax mu jëw noonam Sufyaan ne ko huwa aqal min an yusallita ala xasanatihi maa yadhabu biha wala maa yudhibu biha xelam ëpp na ci muy dugg ci loo xam ne la mu am ci mbaax yëpp ay dem ndekete nit su jëwee rek la mu baax le yëpp yëpp yëpp ay dem waaw temps bi ngay jëw nga julli ko nga jàng ko alxuraan nga gëstu ko xam-xam tuddal nañ abu xanifata niñ fanweeri at njàpp gayam lay jullee fajar ah seetal loolu fanweeri at njàpp gayam am na sax ñu ne aj na juróom fukki yoon waaw léeg-léeg lenn lim yi niru lu exagéré waaye nag euh, doo ko mën a weddi doo ko mën a weddi waaye xam nga ki nga xam ne loolay soxlaam du jëw loolay soxlaam du jëw loolay soxlaam du jëw loolay soxlaam du jëw mukk parce que kii jëw dafa mëtadi imam malik nee mën man lam yakun fihi xayrun li nafsihi lam yakun fii xayrun li xayrihi ah nee ku yiw yiw newul ci ko amalul boppam yiw du ko mën a amal keneen waaw ah. maanaam koo gis muy eh, tudd yiwa di keneen rek yiwa deema tax waaw yiwa deema tax waaw ah, yiwa ah. daan na wax ne eh, koo xam ne fu mu toll lu mu wax dëgg la lu mu wax dëgg la nee na du taxali ko xelam ne su màggatee sax du naax su màggatee sax du naax su màggatee sax du naax waaw soo naa woon nag wax dëgg yàlla ah, loolu rek moo doon yitteem wax naa ko doom yi mu ma ne leen moom réussir na ko mooy fexe na ba ku nekk ci yéen def na ci yow diine xeex na ci yéen ba def ci yéen ñëpp diine waaw ah. li ciy preuve ba ñu jógee ca dëj ba ñëw di añ ci kër gi doom ji Pape Moussa ne ah dafay xaar ba ci kanam bi ma insisté mu ne dafa wóor ma xam ne yaayam la ma xam ne yaayam la fexe ba te te lii ñu ne nag muy sàkku xam-xam daf ñoo dimbale ci loolu ndax imam Shafii rahmatullah alayhi dafa wax ne eh, sàkku xam-xam moo gën jullig naafila nee na moo gën jullig naafila waaw moo gën jullig naafila nee na maa tuqurriba ila allahi azza wa jal baada adaa il faraidi bi afdali na amul jaamu yàlla gu mën a jaamu yàlla mu gën ñoo mën a jegel yàlla gannaaw farata yi lu mel ni sàkku xam-xam amut ah, lu la mën a jegel yàlla lu raw sàkku xam-xam gannaaw farata nee amut nee amut ah, nee na eh, nga rus léeg-léeg nga bañ léeg ñu laaj mu ne waaye embarrass na embar nan lañ koy waxee sax embarrassment bi ngay am ci sàkku xam mu ne sax daf lay dimbale mos na wax ne man duxika minhu fi masalatin lam yansaha abadan waaw ah, nee na masala buñ la ca reeyee ne dootoo ko fàtte mukk waaw ah, dootoo ko fàtte mukk dootoo ko fàtte mukk ah, xam naa bu ñu sañoon wax ci moom eh, ba yi jeex waaye kenn mënul jeexal lépp moom dal wan na yàlla yiw yàlla wan ko yiw xam nga e, gudd fan nekkul ci dundu at yu bëri dundu fan gudd fan mi ngi ci e, nga defal yàlla wala nga def ci sa dund gi la yàlla jox loo xam ne bo ni dund na téeméeri at mënu ko nit dund dana téeméeri at mën ko tey jii fu ñuy tudd grammaire arabe tudd Sibawayh te fanweeri at la dund fu ñu tuddee jigéen ju baax suñu xel dem ci ndey Fatimatu te dundul fanweeri at ñaar fukki at ak juróom-ñett la dund ñaar fukki at ak juróom-ñett la dund te moo gën ci jigéen ñëpp waaw moo gën ci jigéen ñëpp waaw ndey Mariama it noonu te moo gën ci jigéen ñëpp waaw ndey Mariama it dégg nga ah, dundam guddut noonu waaw ah, nit na lu ëpp la mu dund waaye foo foo tuddee yow sa xel daj ko ndey Fatima nag tabarkal waaw ah, ah, waaw imam ahmad moo daan wax ne ida aradta an yaduuma laka allahu kama tuhib fakun kama soo bëggee yàlla nekkal ni nga bëggee nekkal ko ni ni mu bëggee nekkal ko ni mu bëggee yëpp nattu la nga xam ne yàlla daf lay wan ni mu la bëggee rek góor gi Moussa mooy wax ne defe naa góor gi Moussa Ka moo ne nattoo di kerkeraanu lawliyaay ku weddi laajal xayrul anbiyaay waaw nattoo di ku yàlla yërëm ko ah, may ko aljanna xam naa ne daal ah, danañu manqué ah, manqué jàkk ji na manqué mbokk yi ku bëggoon mbokk ku bëggoon njaboot ku bëggoon ku bëggoon ku bëggoon ah, lii Ali Cissé daal waxoon ba alxaaji Cheikh al Islam alxaaji Ibrahima Niass radiallahu anhu dëdd muy muy def discours pour seede ci moom mu ne sëriñ bi dee jullit la woon mu jaxtaat sëriñ bi dee jullit la woon xam nga buñ ne la jullit nga rek tàgg nañ la tawaffani musliman jaata wa alhiqni bi saalihin Seydina Yusuf nee na yàlla balaa ngaa jël sama ruux def ma jullit yal nañu ko yàlla defal yaa rabbi ne ko yàlla yërëm may ko aljanna eh, dégg nga wuutu ko ci njabootam wane la kook suñu soppe bu mag ba yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kook soppeem bu mag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne la koog suñu sëriñ Cheikh Sidi Ahmed Tijaani radiyallahu anhu boole leen ci barsax euh, Sidna Rasul euh, barsax Sidi Ahmed Tijaani euh, yéegee ko ak ñoom ci aljanna ye gën a kawe ci lu dul mbugal ci lu dul xisaab ah, teg ñu ci yiw ñu nit ba buñ leen fekkee duñ leen rus Ah, te ñu bokk ñun ñëpp teraanga ya aljanna ya rabbi nag ñu ko yàlla defal barakatil qur'anil karim wa xurmati mawlana alxabibi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama amin amiin leen féete woon yal na leen fi yàlla féete fa ngeen ko féete woon yal na ko fay borom bi féete si daraja rasulillah amiin yaa rabbi sallallahu alayhi wa sallam macha allah amiin li ñuy wax dëpp de wax ne luñ ci wax ci moom rek wax ne bàyyi nañ ci bàyyi nañ ci lu ko ëpp maa ngi wax ci tàgge bi ni ko xam nga am na ko nga xam ne da nga koy xoolee ko bokk ak ndey ak bàyyi waaw sa sœur wala sa doom walla sa frère xam nga ñooñu ñooy nit ñu nga xam ne doo imaginer mukk ni bés hmm. dina ñëw nga tàgge leen waaw loolu bi may bind tàgge bi loolu ñëw sama xel ma ne ko ah man de mosuma yaakaar ni bés dina ñëw fekk man maa lay tàgge dama foogoon ne yow yaa may tàgge loolu de laa foogoon waaye nag yàlla bu soxlaa ñëpp ñàkk waaw bu soxlaa ñëpp ñàkk amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin te mu te mu dugal ñu ci yërmandeem nag waaw te mu ñu ci yërmande parce que yiñ fi wax yëpp kat yërmandem rekk moo compte rek nag dafa mel ni sax mën a def lu baax lëf la ci yërmande yàlla dëgg la waaw yërmande yonentu dafa xëy ne ne saxaaba yi kenn ci yéen du dugal aljanna kat ndax jëfam kenn ci yéen ñu ne ko ba ci yow yonent mu ne ba ci man illa an yataxammadani llahu bi rahmati lu dul yàlla muuree ma yërmandeem yàlla ñu yàlla muuree yërmandeem في علي ملاذ الناس في دون من بالنوالي شجاع